<laughs> Madiambal Diagne nee na reste plus à Diomaye et Sonko que de nommer Amadou Ba premier ministre Sonko s'exécute démission des élus des des, des élus devenus ministres taxe cent sur le prix du mètre carré la recette du PDS contre les inondations nous devons rester soudés reprendre travail à la base loolu la leen wax. Mhm. waa APR lu ma sax waa benn waa APR laa Sonko à la conquête de l'Afrique. Hmm. Cheikh Niass invité du journal de 20 heures à la RTS Walfadjri renaîtra de ses centres tel un phénix il est fort possible lii la Cheikh wax il est fort possible que le fournisseur d'électricité ait envoyé une charge très importante nous nous demandons, pas à Diomaye et Sonko un retour d'ascenseur ça defagul dara sax autosuffisance alimentaire chronique de Ibrahima Anne ok boobu Walfadjri la Les Échos l'immeuble qui s'effondre ah non boobu bu Saint-Louis la Les Échos ça c'est un immeuble chambre administrative de la Cour suprême un immeuble de Eliman Lam au cœur de contentieux hmm. Ils ont attaqué un décret du sous-préfet, un arrêté du sous-préfet de Dakar voulant le, les expulser de l'immeuble 6 à l'avenue Faidherbe. Ah ouais? La Cour suprême se penche jeudi prochain sur la requête des commerçants. Hmm. Expression claire de son opinion panafricaniste et souveraine. Pastef souverainiste. Pastef privilégie ses partenaires les petits <laughs> et Mélenchon. Mélenchon day am na feebar ma. plus mhm. ah. la gauche française a tout à fait. Même, même, même. Oui, oui, c'est vrai. Doyen, tu as eu des journaux. Oui. Bon, disons que c'est vrai, c'est un bon début de semaine hein, la une des journaux. Mm. Actualité très, très riche. bon on peut quand même euh, souligner le, le de la Palestine. le mhm. président Diomaye yëkkati na baatam pour être euh, l'avocat comme dit le journal. Mhm. de la Palestine. Mhm. peut-être à mon avis vraiment c'est un génocide qu'il y a en Palestine. c'est c'est un génocide il faut avoir le courage. Euh, Afrique am euh, courage wax dëgg Mm-hmm. c'est un euh, c'est c'est vraiment un génocide. y a mm-hmm. pas c'est pas une guerre. Mm-hmm. Ah, c'est une armée euh, israélienne qui qui détruit euh, qui détruit un pays. bon malheureusement l'ONU euh, mënuñ ci dara États-Unis Europe ñu ngi jàppale Israël et ça risque d'aller trop trop loin heureusement quand même que l'OCI yëkkati na baatam pour crier au génocide mais je pense que Union africaine ci boppam dafa war a jóg c'est c'est un génocide qui est en train de s'organiser après ñu xaar euh, fin d'année bi 2025 euh, euh, on passe l'éponge pour moi peut-être c'est le moment ou jamais pour les Africains ñu taxaw soutenir le peuple euh, palestinien parce que euh, Israël va raser on va va raser toutes les grandes villes va détruire le Hamas va peut-être entraîner un cycle de violence dans le Proche et le Moyen-Orient peut-être même dans les pays européens et loolu je crois qu'en tout cas africain yi war nañu jóg ci seen bopp xam ne que c'est un danger mm-hmm. qu'il y a aujourd'hui en Palestine mm-hmm. bon maintenant sur les questions politiques c'est vrai que problème majeur bi mooy les réformes donc on attend on attend les les réformes mm-hmm. les réformes des institutions bon qu'il y aura certainement bientôt euh, Euh, des assises pour euh, nit ñi mën a discuter sur les réformes mais on attend quand même euh, surtout à mon avis hmm. les institutions c'est la séparation des pouvoirs des loolu mooy difficulté Sénégal depuis Senghor ba tey ji hmm. formellement bind nañ ko séparation des pouvoirs mais ci jëfin benn président respecté wul la séparation des pouvoirs mm. loolu je crois que nañu xaar Diomaye ak Pastef ak sénégalais yi qu'est-ce qu'ils vont proposer comme régime de séparation du pouvoir mm-hmm. euh, naka la justice bi war a taxawee pour nekk une justice indépendante l'administration aussi on ne souligne pas assez mais il n'y a pas que la justice indépendante qu'on cherche on cherche une administration indépendante professionnelle capable de de de piloter les politiques publiques bon à part les réformes donc il y a cette histoire aussi de des politiques publiques que que le gouvernement est en place mais euh, on attend beaucoup beaucoup les politiques publiques mmh. quel type de politique publique Diomaye et Sonko vont proposer que ce mm. soit euh, au, niveau euh, au niveau des ministères on attend beaucoup les ministères euh, de souveraineté ban politiques la ñuy la ñuy proposer comment on va les mettre en œuvre il y a aussi cette histoire de de gestion des urgences plan d'action bi naka la nar a je crois que là côté boobu moom politiquement on attend beaucoup beaucoup des débats mais à mon avis contradictoires ça il faut pas que les gens croient que fal nañu Diomaye am nañu premier ministre am nañu gouvernement ñoom ñoo war a indi solution pour les Sénégalais non mm. pour man il faut inverser la démarche il faut que le gouvernement. ñu jël solution ci Sénégalais ñu déglu. mais nañu déglu Sénégalais yi. Mm. la la solution n'est pas en haut. la solution elle est en bas. Mmh. je pense que s'ils veulent la rupture, la rupture c'est à ce niveau-là, dans la conception des politiques publiques. Mmh. Qu'ils qu écoutent les populations, les acteurs sont là. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont la chance. Hein. Présidentielle bi, moi j'ai vu beaucoup de coalitions. secteur boobu mhm. woon tijjël il une coalition des paysans, des pêcheurs, des artisans. Voilà. Mais ça, c'est des, des, terreaux pour réfléchir. Il faut mmh. les associer sur, mmh. les, sur les politiques publiques, à mon avis. bon vraiment su naree am rupture foofu la war a njëkkee. Mmh. déglu askan bi xam bëgg seen bëgg-bëgg. Mmh. ak aussi boo koy def politique publique c'est pas que ngay defaral askan bi déedéet askan bi dafa war ànd ak yow. il faut il euh, faut mettre fin à l'assistanat. La, la population, elle a, elle a voté, elle a choisi librement. Mmh. Elle veut quelque chose, mais il faut qu'elle participe. Il faut l'associer mmh. et, faire participer les, les gens pour mhm. mener les politiques publiques à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai, il y a un débat des, experts sur le projet du PASTEF. Il n'y a pas de projet du PASTEF. Il faut que les gens arrêtent. Le PASTEF, c'est un parti politique qui s'est battu pour gagner une élection présidentielle. Le programme de Jomai, c'est ça le de Jomai. Diomaye mm. n'a pas un programme passif les Sénégalais ont voté un programme électoral mm-hmm. maintenant en un mois ben, il peut pas avoir un programme en un mois un programme sur cinq ans c'est pas c'est pas que il faut une baguette magique l'état voilà il faut, faire l'état des lieux il faut voir yow dans ton programme électoral il faut avoir les experts c'est tout un travail je pense que aussi il faut que le gouvernement là puisse expliquer la démarche. c'est ça le problème explication. il faut expliquer la démarche c'est pas que fal nañ la rek yaa yore solution yi du demee noonu. Euh, je pense que euh, là ce qu'on attend du gouvernement mooy qu'il mette en place euh, une feuille de route pour ne man en termes de stratégie de développement sur les cinq ans voilà mon projet. Hmm. chaque chaque chef d'État à sa stratégie de développement. tout à fait Wade amoon Macky Sall amoon na Seydou Abdou Diouf amoon c'est c'est ça la logique de de l'État. Mm-hmm. bon bu amee stratégie am de développement parce qu'on va lui demander aussi c'est un plan d'action. Mm-hmm. je crois que c'est les deux piliers il faut pas que les gens fii ak fin juin mënuñu am stratégie mënuñu am plan d'action. c'est pas possible. donc ça aussi bon je pense que gouvernement bi war na expliquer sénégalais yi aussi euh, fan la toll ni muy liggéeyee ak lañu lu ñu war a xaar ci moom déglu leen. Hmm. pour ñu camper la stratégie et le plan et le plan d'action. Hmm. maintenant il y a les urgences. waaw manger boire se loger. les les urgences aussi. il faut que les quatre il faut que le gouvernement puisse avoir au moins un plan d'urgence. c'est on ne gouverne pas à l'aveuglette. Euh, je crois que débat boobu aussi baax na donc médias yi quand même euh, faciliter la compréhension pour man vraiment bu ñuy débat nañu débat sur lu ko jar. Hmm. pas xiro ngaayoo suspicion <coughs> euh, non on débat des questions politiques euh, l'élection est passée maintenant bon les gens débattent en termes de projet en termes d'idées je crois que démocratie bi fu ñu toll daal. il faut instaurer un débat contradictoire mmh. que, pour man euh, c'est la même chose pour euh, l'actualité de de l'APR mmh. bon Macky euh, veut un APR dans l'opposition Benno dans l'opposition bon ça aussi il faut pas qu'il fasse les mêmes erreurs que le que hmm. ah, le président est à l'extérieur il peut pas piloter un parti politique dans l'opposition en étant à l'extérieur <coughs> APR aussi war nañu bay xool honnêtement quel est le bilan de de la paix comment lutter dans l'opposition comment on s'organise mais euh, bon débat boobu aussi malheureusement comme certains journaux l'ont dit ah bon suñu opposition bi peut-être que elle n'a pas digéré sa défaite encore mais pour man on il faut arrêter l'idée de il y a une majorité terminée non non C'est la démocratie, c'est que autant on attend beaucoup du pouvoir, mais autant on attend beaucoup de l'opposition. Tout à fait. C'est, c'est ça la démocratie que, que opposition bi war na taxaw ça fait partie bon si je prends l'exemple de l'Assemblée c'est très clair qu'aujourd'hui euh, elle est majoritairement Benno ben, cette majorité parlementaire là il faut qu'elle montre il faut pas qu'elle soit amorphe ouais. si les partis se cherchent dans l'opposition mais quand même l'assemblée parlementaire li ñuy coow ni par exemple les débats sur euh, les réformes ça passera par l'assemblée tout à fait le plan d'urgence ça passera par l'assemblée mmh. donc l'assemblée elle a un rôle euh, je crois que même si les partis vont mettre du temps pour se réorganiser quand même assemblée war na war na gën a dëgër euh, d'ici les six mois là ñu xam ne que l'assemblée c'est un pouvoir euh, aussi important que le pouvoir exécutif. exécutif. Mm-hmm. bon man c'est les les les actualités. Mm-hmm. bon les plus les plus importantes évidemment i y a cette histoire de rapport encore c'est-à-dire que trop de scandale mais là aussi il faut euh, pouvoir ak opposition ñu xam ne que bon le c'est à la justice de trancher mm-hmm. ça il faut ñu d'accord ci c'est-à-dire que corps de contrôle def na liggéeyam <coughs> jox na ko président président a publié mais pour ce qui est du traitement des des des euh, de, de, de, des rapports honnêtement laissons à la justice faire son travail acceptons qu'elle soit indépendante jusqu'au bout mmh. c'est, c'est pas le président c'est pas le premier ministre c'est pas les partis politiques kenn mënul taxaw ne nii lañ ko war a juger wala déedéet nañ nañ il faut faire confiance à notre justice je crois que pour man euh, suñu bëggul en tout cas polluer l'atmosphère politique au Sénégal euh, il faut éviter ces querelles euh, qui se dessinent là autour des que euh, il y a des gens qu'il faut pourchasser qu'il faut amener en prison en tout cas cette vindicte populaire là bon en tout cas li li hmm? daloon li li daloon Benno Bokk Yaakaar du ma la sax Benno président Macky nit ñi topp ko tëjal tëjal defal lii defal lii defal lii mu mujjee nekk ay xeex ak ay xuloo ay fayante moi je pense ko j'ose espérer que du leen daal je pense que war nañ cee mën a jàng quoi mais bi ñu dégloo nit ñi ci côté boobu rek après ils vont perdre beaucoup trop de temps et nous on n'a pas le temps. non l'erreur c'est de croire que ouais. bon il y a une mauvaise gestion c'est une demande sociale. mais c'est pas une demande sociale. ce n'est pas une demande c'est une question de gouvernance de bonne mm. gouvernance il y a eu des rapports il y a eu des des des, des manquements mais laissons la justice trancher. bon comme tu l'as dit bon euh, en tout cas Karim Wade ça devrait faire réfléchir tout le monde. Tout on l'a mis en prison on l'a exilé. Mhm. on a plus perdu de temps et d'argent qu'autre chose. mais on n'a pas récupéré li ñu doon soi-disant li ñu doon wax. non on n'a pas appris. on n'a pas, pas appris quelque chose. et, et je pense que le, lui aussi warul dal. Euh, le, le warul dal le président et son et son premier warul dal Sénégal yi aussi c'est-à-dire que faisons confiance à la justice mm-hmm. euh, lu lu ñu ñu jox leen lu ñu war a rek ñu def ñu def pour ñu xool feneen c'est mieux pour tout le monde Adama bon fi mu daane laay laay mujjee parce que aussi euh, la publication des rapports dafay andi difficulté dans la dans dans le pays parce que chacun a de lire le rapport mmh. Mmh. aujourd'hui tout le monde et tout les gens inculqué ñi nga xam ni rapport daf leen épinglé <coughs> ils sont déjà jugés mais mais et les la population dans leur mentalité s'apprête les les voit déjà en prison mmh. or que c'est la justice qui doit faire son travail mm-hmm. donc la publication des rapport dafa am limite parce que nous sommes dans un pays boo xamante ni tout le monde comprend au premier degré mm-hmm. donc ay difficultés yoo xamante ni la la publication de ces rapport andi na ko si normalement nous voulons dañu bëgg liggéey bi ñuy def bi cour de contrôle def mu nekk liggéey bu jaar yoon à leur niveau ñoom suñu gisee ni am na ay ay ay nit ñu épinglé nañu jox justice rek mu def liggéeyam au lieu que la population ñëw jot ci avant parce que demain on peut aller au tribunal et ces gens là mun nañ leen relaxer suñ leen relaxer l'opinion publique du leen setal. du leen setal parce que l'opinion publique yàqu na ba pare ñoom ñu yàqu nañ ba pare au niveau de l'opinion publique ñi ñu épinglé nii ñëpp dañoo sàcc alalu réew mi. et tel peut ne pas être le cas parce que benn yoon dans les rapports ils ont dit détournement de deniers publics dans les rapport amul fenn fu ñu bindee tel à détourner la la l'argent public binduñu ko fenn mais puisque sénégalais moom nu mu ko nu mu ko bëggee loo waxee rek la koy waxee ni ñu ko bëggee loolu lañ koy waxee te malheureusement ñi nga xam ne dañu yor baat di dem ci ci ci médias yi dañ naan sàcc nañ alal réew mi or que tel n'est pas le cas. te tel n'est pas le parce que loolu sàcc nañ alal réew mi justice rek moo ko mën a def comme ni ko doyen waxee donc foofu dañ ci dañ ci dañ ci xaw a am ay ay ay ay problème maintenant si on revient au niveau de la presse sur la sur les unes et autres c'est vrai l'actualité tourne autour du président de la République dem na OCI il la pris position pour euh, Palestine pour Palestine comme ni ko doyen waxee nous tous nous devons nous lever et porter ce combat pour que cette injustice là puisse puisse s'arrêter et ñu on, on passe autre chose la presse aussi a fait état de beaucoup de choses mais dafa am lu presse bi fàtte mm. y a les ponctions sur les salaires on a ponctionné le salaire des travailleurs de beaucoup de travailleurs dans ce pays là personne n'en parle nest pas il y a l'augmentation de l'électricité personne n'en parle il l'augmentation de l'impôt sur le revenu personne n'en parle c'est des choses yoo xamante ni mi ngi xew ci suuf ci biir réew mi et que sénégalais yëguñu ko personne n'en parle c'est vrai mais war nga war nañ mën a may état bi temps mais war nañ mën a informer état bi parce que y a des qui sont fatigués parce que am na ci ñoo xam ne dañ leen ponctionner la moitié de leur salaire ban droit lañ ko teg ak fan lañ ko teg mm-hmm. y a des employés jusqu'à présent ils n'ont pas perçu leur salaire période bi au niveau de, de, de, de du corps enseignant période bii à cette période l'augmentation de l'impôt sur le revenu daan loon am octobre novembre décembre la daan jëm mais aujourd'hui ils sont à 42 pour cent d'augmentation de l'impôt sur le revenu c'est-à-dire soo waree jot rappel 1 million xam nga looy looy jot 4 600 000 francs donc les 400 000 day dem impôt sur le sur le revenu fan lañ ko teg donc c'est des choses yoo xamante ne pour moi la presse devait faire état de cette situation là informer population bi état bi mën a jël situation bi mën ko régler parce que peut-être ils peuvent ne ils peuvent ne pas être au courant ils peuvent ne pas au courant donc état bi informer pour nit ñi xam situation bii la population bi di dund ah ah au moment T. il de a des choses très très urgentes. ñu jëm tabaski. ñu ngi jëm ci tabaski. daa am benn sama benn sëriñu Mbacke Mbacke bu ma ne woon fan yële. Hmm. mu ne ko ah dëkk bi xaw naa dëgër de mu ne ma tabaski bi lay gën a te dafa mel ni yi ngay wax nii day tax nit ñi gën a tiit parce que bu ñu demee tabaski borom kër yu bëri instant bi la ñuy lijjanti seen xarum tabaski. waaw c'est-à-dire boo daggee seen salaire nag day métti yoo xamante ni c'est-à-dire y a des yoo xamante ni ñoom la xaw ma lu tax ça s'est passé comme ça les ponctions. Hmm. xaw ma lu tax xaw ma lu ko indi donc ay laaj la ñuy sam pour on naa ponctionné le salaire de ces travailleurs là. et c'est le service et service public la. et ça c'est grave ce ne sont pas du privé. service public bi la la ñu ponctionné seen salaire service public bi l'impôt sur le revenu dafa yokku à pareil moment le 2 avril le 2 mai 2012 le président avait annoncé la baisse de l'impôt sur le mais à pareil moment cest à le 2 mai on nous on nous annonce l'augmentation de l'impôt sur le revenu on nous annonce l'augmentation des des des de l'électricité on nous annonce future augmentation du prix du gaz on ne les annonce pas parce que xam nañu fa lañu jëm donc moo tax il faut que état bi xam pour man la presse devait jouer ce rôle la d'alerte pour informer l'opinion pour informer le le président parce que président su toogee xëy la matin dañ ko joxoon note technique par rapport à la presse li presse bi bind mu mën ci jël ay ay solution donc man pour man presse dañu fàtte côté boobu waxuñu ci et il devait faire état de cette situation là gi nga xam ni moom la travailleurs yi di dund moom la fonctionnaire yi di dund moom la enseignants yi di dund par rapport à leur rappel rappel d'intégration rappel de validation su ma waxee nag dinañ ne jàngalekat la moo tax mu waxee nii. parce que loolu moo am. dafa jar dafa am solo sax. dafa pour ñu wax ko parce que ñu ngi dund. lu metti on ne parle que du foncier. la question du foncier aussi sur la question on nous apprend que. littoral bi filao yi euh, ba ci banlieue bi. ba ci les terrains est 15 pour cent. inspecteur de domaines yi ñoom moom quinze pour cent yi loolu fan lañ ko teg donc dans les cadres des des réformes il faut réformer la l' inspection des domaines. mais dundoo neen dañ ko war a tas. <coughs> waaw parce que la direction des domaines warul nekk biir inspection des domaines. neen dañ ko war a tas. waroon naa dem peut-être cadastre. loolu parce que war naa dem CARES parce que su boobaa su su boobaa ma ñaawte fii ngay xam ni moom moo fi am parce que man d'accord ma saa yu ñuy morcelé l'inspection des domaines am 15 pour cent ñu teg ko fan saa yu ñuy morcelé l'inspection des domaines la direction générale des impôts et domaines am quinze pour cent des terres yi nga xam ne moom la ñuy morcelé et le Sénégalais lambda qui a pour pour avoir un terrain et le Sénégalais lambda qui a des difficultés mais dafa am benn corps boo xamante ni mooy corps d'élite moom la ñuy beral loxo dans le morcellement ça il faut changer ça et je pense que l'actuel président dina def ay réformes par rapport a ça parce que xam na ni peut-être je pense que jàppee na ko injustice même su nekkee këram ci loolu la ko amee mais war na ko jàppee injustice parce que gën les inspecteurs les inspecteurs des domaines gënuñu yeneen fonctionnaires yi wala yeneen sénégalais yi. Mm. nga xam ni faa ñuy daggee dañ leen daggal 15 pour cent te kenn du leen ci dégg nag. war nañ cee wax de. donc war nañ ci mun a wax pour apporter des réformes par rapport à cette situation là donc lii moo xam ni moom moo fi nekk maintenant nag par rapport à Walf ñu ñaanal leen yàlla ñu génn ci situation bii ñu nekk parce que tamit métti na trop trop trop trop te euh, bon kenn yéenewu leen ko. Euh, doyen balaa may dem ci ci ci monsieur Guèye. nga kii de couverture maladie universelle. <laughs> non disons que c'est un, problème de gestion. Mm-hmm. que. c'est, c'est un, la santé, bon, on l'a dit et répété, hein, que c'est un secteur aussi qui est mal, euh, mal géré, hein, que les mmh. rapports euh, euh, de la Cour des comptes montrent clairement qu'il y a un problème euh, de mauvaise gestion des, des fonds ou bien le, l'achat des médicaments. Euh, le, le, bon, c'est la même chose qu'on a vu au niveau agriculture. donc euh, les, les semences c'est un gros problème les ah. médicaments c'est un gros problème mhm. euh, la dépense la dépense euh, sanitaire bon mhm. santé quand même c'était l'espoir des couches les plus faibles mhm. mais soo xoolee ni muy demee c'est c'est plus euh, privatisé qu'autre chose ah ouais. c'est que que la santé <laughs> elle devient ouais, privée so ils ont dit cinq milliards et quelques dafa dañ kenn mënu ko tracer voilà Donc 5 milliards, comment tu peux gérer un ministère aussi important que, que, que la santé à mon traçabilité alors ouais. qu'on a des experts quand même. Euh, ak coow li coow li coow li CMU am yëpp yëpp yëpp yëpp doyen. doyen ak waa CMU lu ñu abal hôpitaux yi. waaw mm-hmm. li bi. bor bi dafa bor bi. doyen bor bi dafa élevé après on nous dit que plus de 5 milliards boo xam ne dafa. kenn mënu koo tracer kenn mënu ko tracer. dafa disparaître nii. tu vois ce pays. non cest à bon. Pour moi, il y a, y a, plusieurs euh, problèmes qui, qui, qui, sont, qui dans, ces histoires de mal, mhm. cest qu'il y a les politiciens. Mm -hmm. Mm Tous les gens épinglés, c'est des politiques. C'est ça, en fait. Ils sont membres de l'APR, membres de Beno, proches de Macky C'est le pouvoir politique, notre, notre dénon. Maintenant, ils ont des complices. Les complices, c'est les administratifs. Parce que les politiques, c'est pas eux qui gèrent l'argent quand même. Mmh. Mmh. Mais ils ont des complices. Ça, ministre gis bu ñëwee temps mm-hmm. directeur de cabinet bi secrétaire général bi le comptable équipe bi muy am. moo koy choisir mais c'est des proches. et ñooñu soo leen waxee man euh, y a marché public. Mm-hmm. mais ministre bi mënula sant dara nga bañ ko parce que moom moo la teg foofu. Mm-hmm. donc les complices administratifs la ben ñoom ñooy gérer l'administration et les finances mm-hmm. le ministre il n'est au mieux que l'ordonnateur de, de la de la dépense mmh. ce qui fait que dans tous les scandales yi ngay gis ni muy santé bi muy agriculture muy euh, éducation bah, la, la chaîne elle est là on sait très bien mm-hmm. que y le politique y a l'administratif mm-hmm. bah, a aussi les les les, les bénéficiaires y a les bénéficiaires les, les prête-noms qu'il a mm-hmm. dans la filière de l'agriculture et de la mm-hmm. santé mm-hmm. mais kenn mën loola wax euh, kan la euh, ce qui fait qu'on connaît bien la chaîne de la de la corruption mais problème bi c'est euh, pour moi au niveau de la démarche cest dire qu'il y des politiques su fekkente ne yow tu as mal géré milliards dix milliards vingt milliards on doit te sanctionner administrativement c'est ça en fait. c'est quelqu'un qui fait une mauvaise gestion d'un milliard wala ba cent milliards mais on on doit interdire la gestion des fonds publics. pendant cinq ans dix ans ça c'est une punition administrative. tout mm-hmm. Mm-hmm. mais maintenant pour le technicien. mais on n'a pas besoin de l'amener en prison on a on a besoin de le de, de le, le faire travailler sur des normes. tout su c'est les normes tu sais euh, bon je donne toujours exemple des bailleurs de fonds là pourquoi kenn du jël xaalis FMI ak euh, Union européenne ak euh, États-Unis pourquoi mmh. mais mmh. parce que ñooñu bu ñu ñëwee indi seen xaalis dañuy teg seen équipe nga nekk ministre nga nekk DG nga nekk balaa ngay laal seen xaalis procédure yi da nga koy mmh. topp bu mot sëkk avant ñu lay génnal dërëm suñu la joxee dërëm dinañ la contrôle ñu xam dërëm bi est-ce que jaar na fu ñu la waxoon mais pourquoi nous on n'est pas capable d'appliquer les mêmes normes tout à fait mosuma dégg euh, quelqu'un ñu ne FMI nee na sàcc nañu lii wala américain yi sàcc nañu lii parce que dafa defa leer mais parce que y a des procédures bah, de transparence il y a un contrôle en amont et en aval mais ñun bon je suis désolé de le dire c'est-à-dire qu'il y Sénégal voilà bon, je dirais pas qu'au Sénégal. c'est-à-dire qu'il y a qu'en Afrique mm-hmm. quelqu'un qui ministre deux ans trois ans on dit qu'il est millionnaire wala il est milliardaire. Mm-hmm. sur des fonds publics. Mm-hmm. kon bu kon daal la limite ñoom ñëpp sàcc lañ daal noonu parce ku jiiñ sa morom rek ku nekk ci état rek. boo jiiñee sa morom rek jàppal na yaa ngi sàcc lañ on est laxiste. c'est ça en fait. c'est ça le laxisme ça ça ñun ñëpp benn lañ ku ci falu. waaye tout le monde va venir. di ñoo yor nguur gi ngay wax. nga séddoo. et puis dañu dem ba dañ koo gëm dañoo séddoo waaye ko lu ngay dégg semaine yi yëpp mooy euh, on gouverne avec saison hommes on gouverne avec ses hommes loolu ngay déglu loolu lool loolu loolu loolu la ñuy joxe comme argument dañ naan noo ko gañe ñi nga àndaloon bi ngay xeex ñoo ñoo war a ñoo war am pour lan ñoo ñoo war a am est son qu'ils sont plus compétents que les autres ça veut que c'est des postes yoo xam ne après on on va se retrouver avec les mêmes problèmes donc doy na waar daal doy na waar euh, suñu gan. <laughs> monsieur Guèye monsieur actualité bi tey loolu la xëyee bëri na ci loo xam ne wax nañ ci ci ci ci foncier bi comme ni ñu nar a waxee ni léegi ci ci kii bi ci bonne gouvernance comme ni ñu koy waxee ci les problèmes yi nga xam ne moom la sénégalais yi di di jànkonteel les urgences comme ils ont dit ci ci ci la tribune ah manger boire j'ai j'ai beaucoup aimé leur titre aujourd'hui mhm. manger boire se soigner et se loger mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne moo di waaw waaw loolu mooy li moom la sénégal yi gën a gën a gën a yittewoo jamono ji mm-hmm. euh, ñu bàyyi la nga joxe sa xalaat yi li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee tey parce que gis naa ne daal intéressé na la waaw par où commencer par exemple je je peux commencer par euh, ça dépend de donc euh, vraiment di leen remercier encore une fois ci mm. ci invitation jërëjëf di vraiment rafetlu aussi Euh, introduction bi. ak mm-hmm. xam-xam yi nga xam ne génn na fi. Mm-hmm. Euh, di door nag sama kàddu ci muslu ci seytaane. Mm-hmm. Euh, sant yàlla suñu borom julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam sant ki ma yaakaar di Cheikh wax rek nii. je vais par la Palestine parce que moom la ñu njëkk wax. je pense que effectivement ni ko doyen waxee. il y un génocide organisé. avec la complicité des États-Unis d'Amérique et des pays occidentaux. depuis 1948 ba nga xamee ni ci la ñu taxawal l'État d'Israël. ex nihilo pare voilà comme ñoom accepté nañ leen indi leen dëkkal leen ñoom palestiniens yi. finalement ñu dem ba ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo leen dëkkal ñu jël leen def leen ci ay réserves. parce que la bande de Gaza ni ñuy dundee noonu mën nga ko comparer ak américains yi bi ñuy doog a dem les colon colons américains. bi ñuy mm-hmm. doog a dem États-Unis jël Apache mm-hmm. les peaux rouges dugal leen ci ay réserve aujourd'hui euh, li wóor mooy euh, chaque c'est des vœux pieux chaque fois les gens se réunissent ay euh, OCI wala leneen leneen déplorer wala momentanément les disons je peux les appeler les deux superpuissances hégémoniques mm-hmm. moo xam Russie la mm-hmm. moo xam américains yi la ku ci nekk am nga sa clientèle au niveau du Moyen-Orient boo xam ni wala du Proche-Orient mm-hmm. saa yu loon saa yoo bëggee def effet bëgg def euh, pression ci sa sa sa vis-à-vis ki nga xam ne moom ngay jonganteel nga actionné sa ay sa sa ay euh, sa ay pion il faut les appeler des états pions comme l'Iran Ouais. Par exemple, la Russie, quand la Russie a besoin de quelque chose au niveau de, de l'Ukraine, bëgg am euh, yenn yenn yenn droit yi bëggu ci dugg te xam ne américains yi ñu ngi taxaw dañuy taal fale américains yi aussi noonu bu ñu bëggee yëngal fenn dañuy yebal Israël mu daal di sànni ay bomb comme ça affaire yi mu am foyer de tension bi affaire bi commence escalade amaat ay mm. doomu aadama di ci dee gratuitement mm-hmm. te doole yamul parce que l'État d'Israël est véritablement une superpuissance militaire boo xam ni pays occidentaux yi ñoom ñoo ko ñoo ko ngemb ñoo nekk ci ginnaaw donc vraiment lu ñu ñaawlu la le Sénégal nag a toujours joué un très bon rôle euh, depuis euh, depuis Senghor par rapport à la question palestinienne parce que on a vu que même Yasser Arafat ak ñoom euh, ñeneen yi nga xam ne ñoom Abache ak ñooñu ñooñu ils ont toujours eu quartier au Sénégal. Mm. dañu mës di ñëw nu mu leen neexee. et tout mm. et tout yaakaar naa ni sax mës nañ fi am siège boo xam ne siège mm. OLP nekkoon na fi. donc loolu daf lay wan la al Quds al Sharif aussi. que nga xam ni ñi nga xam Sénégal li mu doon euh, avec Moustapha Niass on on se rappelle que du mu nekkee ministre des affaires étrangères moo dirigé woon affaire boobu au niveau de, de des Nations Unies. Mm-hmm. donc le Sénégal a toujours euh, été à la pointe de ce combat à travers l'ensemble des présidents yi nga xam ni succédé wu nañ fi. Mm-hmm. notamment le président euh, euh, euh, Abdou Diouf. Mhm. qui a pris le relais de Senghor le président Ablaye Wade et Macky aussi qui a vraiment joué un rôle moo tax bi ma gisee ku mel ni Ayoba Paye xam ma le journaliste là qui dit que oui Sénégal mu ngi doog a jël ay mesures yu yu mhm. contre la contre Israël etc etc vraiment ça a fait un peu rigoler mhm. voilà parce que tamit bala ngay naan naan ne fa il faut ñuy koo xam ne toogaguloo sax naka nga mën a amee marqué politique gu. Euh, mm-hmm. diggante euh, li nga mm-hmm. xam ne moo nekk si diggante Sénégal ak euh, Israël et cetera et cetera. il faut loolu. Sénégal aussi di wax la boo xam ni bon les gens ont vite rectifié ils savent que d'ailleurs y de ay audio ak ay vidéo mm-hmm. yu nit yi circulé ci kii bi nga xam ne weddi na loolu complètement bref en tout cas c'est une question boo xam ne vraiment nit ñi war nañ ci war nañ ci taxaw les états war nañ ci taxaw. Mm-hmm. te loolu liy mën a tax états yi taxaw ci yëpp mooy am ay états yoo xam ne dañu nekk ci ay organisation yu am doole. Mm-hmm. yoo xam ne danañu mën a peser de tous leur poids mais su fekkee ni par exemple la oumma islamique est divisée. Mm-hmm. Arabie saoudite am pro américain et cetera ñeneen ñi lii ñeneen ñi lale doole du am. parce que lii pour mu jeexal ko. il faudrait pas aussi se dissoudre dans le G8 ou bien genre organisation euh, mmh. yooyu nga xam ne ñoo nekk en Occident mmh. man loolu ànduma ci vraiment il faut des organisations africaines très fortes des mmh. organisations islamiques très fortes yoo xam ni am nañu doole boo xam ni sur le plan économique ak lépp mën a peser de tout leur poids devant ces nations là pour que effectivement les Palestiniens ñu arrêté li nga xam ne voilà c'est très important donc par rapport aussi à ni ko ni ñu ko doon waxee léegi les questions de de justice yoo xam ni génn na fi ci régime bu bees bi nga xam ni ay euh, euh, disons rapport u OFNAC ak yu demee noonu vraiment Adama je je te rejoins ci li nga wax ak doyen aussi il a dit la même chose c'est-à-dire il faut pas jeter les gens en en vindicte populaire quoi c'est-à-dire ñëw rek woo dal di jël ay jaambur yu nga xam ni peut-être tudd nañ leen ci dara parce que seen liggéey la te loolu amoon am na ay jafe-jafe yu ci amoon nga ñëw teg leen ci di bi ko biir marché bi weer leen wane ni ñoom dafa am lu ñu def xam nga saay-saay waxul dëgg mais yàq na xol am na nu nga xam ne même bu fekkee ni il n'est pas prouvé que jël nga il est absolument certain que ni boo ca génnee sax ñu justice setal la sa der dootul set bu mukk j'en veux pour preuve la la question Mamour Diallo Mamour Diallo foo ko tudd Sénégal ñu ne ah 94 milliards yi jël na lii jël na lële. alors que il est absolument clair que demeewul comme ni ko ki ko doon wax bi premier ministre bi à l'heure actuelle ni mu ko doon waxee amul. parce que moom dafa taxawoon fii dialogue sénégalais yépp ni moom am na numéro compte am na banque bi ñu ko dugal su ko justice kiiwul dana woo presse bi jox tekka ci seen loxo de yàggul bërki démb la. Mm-hmm. il est incapable de le faire. donc tooñ na jàmm ba ca kanamu yàlla. tax na kooku foog naa dañ ko dafa démissionné xam nga dañ ko mujj dañ ko mujj limogé loolu yëpp yàq liggéeyu jaamur alors que je pense que justice am na ay euh, nu mu tudd disposition yu mu jël état Sénégal pour nit bu defee naka su noonu ci liggéeyukaayam maanaam une mauvaise gestion mm-hmm. il y a des sanctions administratives mm-hmm. qui sont prévues mm-hmm. su fekkee ni dafa dem ba gën a graaw ba nga xam ni xam nañ ni kii dafa luubal am na ay sanctions judiciaires yoo xam ne dañ ko teg en place donc li normal mooy état am secret am jaanu biir. loolu moom manqué Sénégal ban foogoon naa ne rupture bi bi ñuy woote ñoom loolu moo ciy njëkk maanaam état nekk état bu nga xam ni du lépp lu xam ci biir lu muy def rek daf koy génne ci diggu mbedd mi. bu ñu décidé tey dara balaa ngoon journaux yëpp jot ci wala euh, réseaux sociaux yëpp jot ci. loolu kay am rupture loolu fi ma sa xew. dañ ko toppaat rek même chose la. te loolu bokk na ci li nga xam ne ah. moom la Sénégalais yi gën a soxla. Mm-hmm. beneen affaire bi am mooy les questions de euh, les questions foncières comme ni ñu koy waxee gis nañ ko temps yëpp mi ngi euh, voilà moo occupé euh, espace bi boo tourné loolu rek la ñuy wax man pour man lecture bi ma ci am jàngat bi ma ci am mooy euh, dañuy sëlëm nit ñi rek quoi. Hmm. c'est un moyen de distraire les gens parce que comme ni nga koy waxee les besoins primaires son la les besoins primaires. Hmm. mooy lekk naan solu ja faju jàngi. aujourd'hui il y a des problèmes yu am mm-hmm. il doit prendre le taureau par les cornes mm-hmm. et régler ces problèmes parce que tamit ñoom dañu am lu ñu waxante ak askan bi il est vrai que il faut que ñu am un délai mm-hmm. mais faudrait-il communiquer avec les gens pour dire que la situation elle est là nii la demee ak nii la demee nii la ñu fas yéene def nii la ñu fas yéene def délai yii la ñu ko fas yéene defee mais comme par exemple moo tax les politique damay wax toujours nii le législateur sénégalais da ko waroon dugal dans le ci loi yi. Mm-hmm. li ñuy wax naan escroquerie politique. Oui. Mm-hmm. parce que euh, quand par exemple tu es dans l'opposition nga ñëw taxaw di wax nit ñi ay di leen promettre monts et merveilles. Mm-hmm. di ko jaare fu nekk di wax lu nekk xoola tey li ñu doon wax ci ay affaire affaire fonds politiques yi. les les fonds spéciaux. du président de la République xam nga loolu. man contre man bokkuma ci ñi nga xam ne dañu ne dañ ko war a dindi. oui parce que dafa am njëriñ. il en a besoin. ils en ont besoin et s'ils ne le font par exemple su ñu toppee seen orgueil parce que nit ñi jàpp nañ leen. Mm. tongal nañ leen ci loolu. Mm. parce que ñoo ñoo ko promettre woon def ko ci média yëpp. Mm. boo ubbi ñu ne riba la on bi vu même vu le premier ministre Ousmane Sonko dire que fonds spéciaux yi di ko jëriñoo riba la. te moom à chaque euh, périodiquement avec son dans son service mm. ils des fonds communs yu ñuy seddoo comme des des, des milliards mm-hmm. yoo xam ne dañ koy seddoo jël ko ñoom te ay liggéeykatu Sénégal mm-hmm. gën ñu nekk liggéeykat gendarme bi mm-hmm. gën ñu nekk liggéeykat balayeur bi gën a ñu nekk ku nekk tu as son importance dans la société mm. donc yow nga jàng ñu lay fay grassement nga ñëw en plus de loolu nga am ak terrain yi ñu lay jox te teewul ñoom boo koy seet ci ñi nga xam ni mooy corps de métier doo xam ni bu gën a corrompu ci Sénégal ñoom la amul werante les inspecteurs des impôts très soyeux malgré tout ce qu'ils ont il son dans toute toute sorte de mag hmm. kooku moom c'est c'est ñëpp Sénégal yëpp a ko xam nga xanaa nga bañ ko wax mais tout le monde le sait donc man jàpp naa ni euh, yu mel noonu taxaw di def ay promesses yu mel noonu moo indi moo leen nar a indil jafe-jafe yi nga xam ne yëpp am nañ ko tey aujourd'hui nag euh, état moom il se rend compte l'état du du mm. du la nga daan wax en dans l'opposition ak la nga daan dig nit ñi naan danaa ko def danaa ko def du noonu lay amee aujourd'hui il est temps comme le dit le doyen de faire une gestion boo xam ni inclusive mm-hmm. boo xam ni da ngay dugal boo doomu aadama yi nga xam ne ñoo la fal gis nga le génie véritable et au sein du peuple. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy dund yenn situation yi ñoo xam seen soxla ñoo xam lu ñu soxla. ñoo ko mën a ñoo ko mën a taxaw orienté la ci. yow nga indi touche technique bi nga ci war a indi nga indi ko ci ak moyens financiers yi nga ko war a réaliser nga def ko ci. Mhm. mais dañu dañu nekkatul ci jamono joo xam ni nit mooy toog fële rek buur ak bumi toog naan nii la ñuy demee nee la ñuy demee nangam nangam. gis nga mhm. avec le PSE ce qui leur est le doyen il l'a dit il dit que effectivement euh, amuñu projet euh, te amuñu projet bi aussi ça se comprend parce que ñu ngi doog a toog il faut au moins faire l'état mm-hmm. des lieux il faut mm-hmm. et cetera et mm-hmm. mais si par exemple le discours d'avant oui. était un discours concomitant à, à, à toute cette réalité hein cela n'aurait pas posé de problème mais quand toi tu dis que depuis Mathusalem tu viens tu que tu as la baguette magique tu la solution avec toi. Tu viens, on a vu Malik Ndiaye, je pense que c'était ici. Oui, ouais. oui, dire que oui, effectivement, euh, il suffit de lire le truc. Nous, quand on vient, le, tous les trucs là, les PSE, on n'en aura même plus besoin. Mmh. dañuy ñëw daal di appliquer li nga xam ne moom la ñuy def et cetera et le président Sonko ici il a il a dit plusieurs fois aujourd'hui ce qui est absolument clair mooy que ils vont continuer avec le PAP 3 tout à fait aujourd'hui la réalité moo daf leen dab loo xam ni mënta dañ donc ces gens-là qui pensent qui qui qui promettaient euh, au Sénégalais une une certaine rupture une certaine souveraineté ah <laughs> léegi ça m'a un peu rigoler quand j'entends que le le de comment euh, Mélenchon va venir etc etc ils en font un événement mais Mélenchon c'est un homme de la de la gauche social-démocrate tout à mais les gens qui connaissent l'histoire savent que effectivement le rôle absolument négatif que la social-démocratie a joué dans la colonisation ils ont été pires que les libéraux ah ces gens-là donc c'est en fait na xëcc tubaab gi teg na le indi beneen tubaab sa tubaab indi sa tubaab la rek parce que aujourd'hui nga ne indi sa tubaab la quoi indi sa tubaab la puusal tubaab kële ñëw indi sa tubaab la tubaab tubaab la daal xam nga xam nga moo tax moo tax moo tax euh, vraiment Euh, y a des choses yoo xam ni war nañ ko xoolaat bu baax a baax les politiques sont interpellés par rapport à ça il faut faire un un discours responsable mmh, mmh. ak lu mu metti metti metti loo bëgg nguur bëgg nguur aujourd'hui ñoom seen projet yëpp c'était prendre le pouvoir par tous les moyens y compris le coup d'état civil qu'ils ont essayé et qui, qui a échoué et finalement ils sont rendus compte que seules les urnes au Sénégal peuvent donner le pouvoir et véritablement à leur euh, ils l'ont appris à leur dépens. Mm. aujourd'hui ils sont ils sont là toutes les promesses yoo xam ne def nañ ko xam nga sànq rek maa ngi liir parce que état euh, c'est un appareil aussi ah. oui am sa yéene. oui mën nga bëgg mën nga mën nga ne dinaa ko def mais boo ñëwee après yaa lay réaliser. mais le PSE xam nga am Macky Sall lu ko nit mën a reprocher xëy na nit mënul mat un régime ne pas être parfait. Mm-hmm. il y a beaucoup de choses à par exemple par rapport à la CNU. les gens ont des on am nañu ay reproches yu ñuy def moom au président Macky Sall moi je suis un un maquilliste sans être dans un parti politique parce que mm. je l'ai je n'ai pas voté pour lui en 2012 hein mm. au premier tour c'est au deuxième tour que j'ai voté pour lui mm. mais sincèrement ce qu'il a connaissant la situation de référence en 2012 avec 900 heures de déficit d'électricité hein un parce que un pays sans électricité c'est un pays à genoux les difficultés yoo xam ni même son prédécesseur lui-même moo ko waxal boppam ni ñii dans trois mois ils ne paieront plus les salaires mm-hmm. parce que tellement la situation était difficile mais comme tu la si bien euh, rappelé mm-hmm. il a pris le taureau par les cornes sans tambour ni trompette mm-hmm. sans déclaration euh, etc etc tonitruante etc au bout de quelque temps il a redressé la situation du kawe njox ñëpp commencé di def ay di poser ay actes yoo xam ni vraiment sur le plan économique nga jóge ci 1 virgule 8 pour cent mm-hmm. aujourd'hui ngay dem bàyyi fi 7 virgule 1 pour cent mm-hmm. vraiment ci wàllu liggéey ak koom-koom demee noonu ak situation yi fi jaar yëpp une pandémie pendant deux ans mm-hmm. le monde était confiné dans une prison le monde entier nous avons été plus résilients que la France que les États-Unis par rapport à cette pandémie nga ñëw wutu guerre Ukraine bi ñëwati encore imposé wu ci yow mais malgré tout cette tendance a été maintenue les gens ont bien travaillé de ce point de vue peut-être que il y a eu des problèmes ailleurs par par rapport à la gouvernance la bonne gouvernance ça c'est c'est des choses que personne ne peut Macky nit ku nekk ak ni la yàlla bindee Macky peut-être li ñu koy reproché mooy yërmandeem bu ëpp ci ñenn ñi bu xasee ba xam nit wala mu am ci yow cofeel wala demee noonu il de te protéger demee noonu ça même ses partenaires le reconnaissent tout à fait n'est-ce point de vue global ñoom li ñu waroon def rek mooy ñëw gis ni Sénégal mi ngi nekk sur une bonne voie euh, nekk un pays lu bees am réalité bu bees un pays pétrolier et gazier. Hmm. ñu taxawal affaire yi mais ñëw taxaw naan dañuy renégocier di yëpp dañuy def nangam nangam ces gens la bu ñu deful attention ils ils vont retarder encore le pays de dañ koy delloo ginnaaw 60 ans alors que notre pays mënoo ko comparer ak yenn genre pays yi c'est pas hmm. possible en Afrique. suñu nous sommes à des années lumière de ces pays là bokkuñu structures yi bokkuñu ah gouvernance bi bokkul nu ñu ko xati sax l'expérience démocratique bi ñu am ak ñoom bi ñu am du benn les possibilités yi fi am ak ya am fële du benn donc ñun Sénégal vraiment ñun dañu dañu war a roy ci ñun mm-hmm. mais aujourd'hui avec tout ce qu'on peut reprocher à, à, à au président Diomaye qui est un président inexpérimenté absolument parce qu'il n'a jamais rien dirigé c'est normal que mu am yenn yenn kii yi mais aussi très rapidement dañ ko war a euh, rectifier mm. parce que li tax ñu war ko rectifier recadrer ko encore mm. parce que normalement il a des gens autour de lui tout parce que tamit il y va même de la notoriété de notre pays tout à mm-hmm. fait parce que aujourd'hui ñun on a toujours joué les les les les les les seniors mm. dans cette sous-région et en Afrique et dans le monde même quand tu vois le Macky être reçu par le président Poutine mais avec des égards extraordinaires c'est parce que carrure la ak ak ak ak ak ak ak kii am carapace-am la mais nga ñëw ci ay Adama Barrow je je n'ai rien contre Adama Barrow c'est le président d'un pays ami et tout et tout des pays yoo xam ne Sénégal moo leen daan def sous son aile protectrice aujourd'hui tu deviens pratiquement le le cadet ah quelqu'un qui reçoit des leçons de ces gens ah qui est rectifié par ces gens je vraiment c'est c'est c'est en tout a ku ñu war a encadrer waat la jàppale ko quoi li ma bëgg a terminer rek mm. ci côté boobu mooy tey laa ko gis je ne sais pas si les gens ont prêté attention c'est vrai que euh, saa waay wax na ko sànq mooy que nii mooy li ma njëkk wax rek mooy dañuy euh, distraire nit ñi mm. euh, aujourd'hui le coût de la vie mi ngi yokk mm. mm-hmm. mi ngi yokku il faut que les Sénégalais soient vigilants mm-hmm. parce que yokk nañu impôt bi au moment où l'ancien président l'ancien régime bi ñu fiy toog un mois après mu mu waat wàññi na impôt sur le revenu ba nga xam ni dafay impacte ci hmm. salarié bi pouvoir d'achat wu sénégalais yi ak salarié yi hmm. n'est-ce pas wëlbatiku na encore wàññi dund gi ñëpp teg ci seen bët parce que le 20 je me rappelle le 20 janvier wala ñu demee noonu la 18 le 18 lañu la yooyu intervenir oon même si ak à coup de subvention et cetera et cetera mais tey gis nañ ni non seulement wàññi nañu euh, yokk nañu euh, impôts yi mais électricité bi tey ci suba on apprend que effectivement am na lu nga xam ni soppiku na ci loo daan jëndee dix mille tey njëgu huit mille ngay am wala sept mille cinq cent tout à fait léegi il faut ci loolu mm. te loolu yëpp day mettil dund gi parce que tamit ñoom aussi dañu war a xam ni réew kenn mënu ko développer ci juuti. réew kenn mënu ko développer ci juuti te ñoom xam nga su ma nee juuti dama bëgg wax wolof inspecteur des impôts yi man dama jàpp ni ay juuti lañu rek à un niveau supérieur c'est des gens yi nga xam ni dañuy récupérer xaalis ci nit ñi doo bëgg développer nit ñi nit ñi ñoom ci seen bopp di di di di nga leen di saigner pour pouvoir avoir de l'argent réew yi ñu nekk xeetu réew yi ñu nekk du genre réew boo xam ni noonu nga mën a def bu dee réew bu mag la nga xam ne am na société yu am doole et cetera et cetera. mën nga di compter ci fiscalité pour mën ko développer. tout à mais réew mu nga xam ne lekkul naanul ay nelawam doyul nga bëgg jël ci di ponctionner ci nit ñi pour di mën a dundal réew mi. loolu day jafe-jafe rek lay indi. en tout cas war nañ war nañ gaaw gaaw gaaw gaaw wëlbati li may daanele nag mooy li ma lay wax ne la gis naa ko léegi ci suba. Mhm. mooy ni euh, dama liir fenn ñu ni le président Ousmane Sonko dajale na. partir waaw ba waxtaan nañu ba euh, fas na yéene sax def tournée boo xam ni ma nga jëm ci pays AES yi hmm. muy Burkina Faso Mali muy Mali muy Guinée hmm. ak Niger ñuy wax rek nii di attirer attention sénégalais yi ci benn affaire j'ai l'impression qu'un bras de fer est en train de de s'installer entre le premier ministre et le président de la République avec un président la République qui a la volonté de maintenir le Sénégal dans son truc normal nga xam ne moom la xam état ni mu koy defalee même su fekkee mi ngi def ay erreurs ñu koy rectifier mais xam na ni y a des acquis et il faut s'appuyer sur ces acquis pour avancer mm-hmm. et quelqu'un boo xam ne moom il a un calendrier caché de mon point de vue il a un calendrier caché aujourd'hui il est en train de contribuer su fekkee ni dafa topp situation ñooñu bu leen toppee le Sénégal va se désagréger et loolu désagré loolu lu muy indi conséquence am xam nga mooy lan. Mm. mooy fragilisation de l'État du Sénégal et tout, toutes les voies pour euh, son son son sont ouvertes pour dugal Sénégal ci kàmb ay scission fi may waxee xam naa ni ñu am xel junj doy na boroom xel parce que booy seet Diomaye boo koy analyser Diomaye il n'a pas d'inhibition identitaire. Mm-hmm. ou d'une mission euh, irrédentiste mm-hmm. c'est un sénégalais bon teint mm-hmm. boo xam ni amul benn problème ak l'état du Sénégal bi mu mm, mel nii mais il faut faire très attention parce que dugg ci ay logique gu ay AES wala ay affaire yu demee noonu mën na indi problème amagul nag dañuy avertir dañuy tirer sur la sonnette d'alarme il faut que les Sénégalais restent vigilants loolu laay wax aussi ci ndonoy mag ñi aussi loolu laay ñu ñun ci organisation boobu ñu bokk loolu laay wax toujours peut-être que le président Diomaye est en train de rectifier beaucoup de choses en allant vers les cités religieuses en promettant de de de continuer l'œuvre du président Macky Sall dans ce sens parce que c'est réconcilier l'État grégorien avec la religion les religions n'est-ce pas muy xam ni catholique la wala jullit la parce que tamit les Sénégalais se retrouvent majoritairement ci këru diine yi moo xam catholique la ñu moo xam jullit la ñu tijaan la ñu murit la ñu xaadir la ñu ce qui ce que nous réunissons au Magal de Touba la Mecque ne la paie pas. Mm par année. Mhm. donc le Sénégal et un est un pays boo xam ne particulier et donc man dama gëm ni état bu intelligent ay hommes politiques yu intelligent yu nekk ci réew mi li ñu war a xinte mooy fexe ba ñooñu nga xam ni tey par exemple je l'ai dit ailleurs le le le le khalife général des Mourides par son discours il peut entraîner l'ensemble des Mourides ak contribuer à au à à à, de de de de de d'autosuffisance alimentaire en riz. la Covid. tout à fait il il peut il l'a fait avec Massalikul Jinan. Mm-hmm. il l'a fait récemment avec mm-hmm. l'université. Mm-hmm. Serigne Babacar Sy Mansour. il peut faire la même chose. il peut dire képp ku yaakaar El Hadj Malick Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu invité def sa ñaq wala sa kii ci canal bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy gas. dëgg te loolu si si par exemple état yi ñun ñu nga xam ne ñun parce que il faut le dire doyen xaw na ko xaw na ko cop doyen c'est ce qu'il dit souvent c'est la communauté qui peut qui peut qui peut gis nga les les sénégalais le citoyen sénégalais ne se reconnaît pas à travers l'état c'est ça la vérité l'état il subit l'état depuis 1960 depuis avant 1960 depuis les français nous subissons l'état on dit que nul n'est censé ignorer la loi par exemple. Mm mais la loi faudrait-il bala nga koy mën a ignorer wala nga mën fa bañ a ignorer. nga xam ko pour te dire xam nga ce n'est ce n'est même pas intelligent. yow ñu nga xam ne dañu la coloniser dañu raté lu bari bu ñu la coloniser pendant trois cents ans libéré la en 1960 am lu ñu fi fekkoon ci ay valeurs ñu dindi ko am lu ñu fi fekk ci ay ay ay ay euh, maanaam lu bon aussi ñu dindi ko am lu baax lu ñu am indi ko am lu bon lu ñu am ñoom it indi ko. mais boo demee ba moom sa bopp. Mhm. war nga mën a toog xalaat ni man saytu. Mhm. ni lii ñii fi nekkoon lan lañ fi indi ci lu baax lu ñu war a mën a téye. Mhm. lan lañ fi fekk ci lu baax ñu toxal ko te war nañ ko delloo si. ah et cetera et cetera. mais on l'a pas fait on a fait du copier coller. loolu nag moo ñuy topp ba suñu joonu yàlla tey. donc il est temps que c'est vrai que distance yu bëri na soixante ans soixante soixante cinq ans après on ne peut pas retourner en arrière pour éduquer les mais il y a des raccourcis il y a des possibilités d'arrimer le Sénégal dans un. truc moo delluwaat ci suñu ànd. voilà ci delluwaat ci suñu ànd quoi. est ce que ñu fekk gars yi fa gars yi toog fa. mais mais. <laughs> on le dit souvent quoi. li ma wax souvent non étranger yi certains étrangers dañu ñëw Sénégal toog fi di liggéey jël suñu liggéey mais leen jëluñu liggéey bi dañoo ñëw fekk pour vide. pour vide wallaahi. ñu occupé ko wallaahi. c'est aussi simple que ça. Hmm. parce que parce que man dama gëm ni gars yi duñ jaay gerte caaf gars yi duñ jaay lii ñoom ñu jël ko occupé ko. dama gëm ni par exemple suñu sëriñ war nañu am un statut consultatif. oui par exemple en tout intelligence nga nekk président la république nga bëgg par exemple ni tey dama bëgg gas canal du Kayor wala dama bëgg def barrage hydroélectrique je dis n'importe quoi man gëm naa ni le président de la république war na mën a dem toog ak kilifa diine yi déeyoog ñoom ci loolu ñoom ñu ànd ci adhéré ci mm-hmm. ni képp ku leen yaakaar na nga ci def sa ñaq wala pëndal ci sa dàll wala nga def ci sa alal bu dee mënuloo ko parce que yaa ngi nekk ci leneen mm-hmm. mais loolu loolu mooy loolu moom moo voilà li doyen di wax tout le temps il faut passer par la communauté. non wax na wax na lu am solo. Mm. Euh, aborder na plusieurs questions même euh, pour moi. Mm-hmm. fi ñu toll nii il y a un changement de de majorité. Mm -hmm. euh, c'est sûr et certain que Sénégalais lu ñu voté euh, à 54 pour cent c'est un choix c'est un choix démocratique. Mm -hmm. que euh, option de rupture. le Diomaye euh, prôné loolu moo tax ñu fal ko donc ça veut dire que euh, rupture euh, déjà monsieur Gaye posé na par exemple la la question du du religieux et du politique. Mm-hmm. c'est-à-dire que système bi ñu am bi ñu hérité ci Senghor ba à mm-hmm. la religion. n'est pas au cœur de, de l'État et des politiques publiques. Ouais. Elle est marginalisée, mhm. elle est assistée. Mmh. Mais si on veut renverser les choses, c'est que le, le, modèle, le modèle de Senghor, il faut le, il faut le, le, remettre à sa place. Il faut changer de paradigme. Mmh. Que la, la, religion, elle ne peut pas être exclue du fonctionnement de l'État et des politiques publiques. Mhm. Et je pense que Djama, il a compris. Euh, tout le monde est surpris qu'il a à Touba, Moussoumi Dalam. mu dem Tivaouane pour euh, être un talibé mu dem à l'église et cetera tout le monde est surpris pourquoi parce qu'il est en train de renverser le regard mmh. le, il, il ne regarde pas le religieux comme quelqu'un euh, euh, qu'il va assister mmh. je pense que loolu bon euh, il faut aller au-delà de l'idée de conseil c'est-à-dire dans l'organisation des États africains on peut avoir un, un, un, un conseil présidentiel. Un chef d'État, il est élu démocratiquement, mmh. suffrage universel. Mais le pouvoir religieux, qui n'est pas élu par les mêmes mécanismes, mais pourquoi pas un conseil mmh. du Sénégal où tu retrouves et la religion, et la politique, et les traditionnels. C'est ça l'idée de départ euh, pour moi euh, qu'on a faussé. C'est-à-dire que, bon, de nous, de nous quand même. Mhm. Moi, je dis clairement les choses. c'est-à-dire que suñu bàyyoon les pays africains bu ñuy dem seen indépendance ñu choisir seen système politique on n'a pas choisi notre système on nous a imposé on un système c'est ce système présidentialiste là qui nous a mené là où on en est mais suñu amoon euh, les états africains par exemple les états les royaumes les empires euh, l'organisation de, des pays africains de manière générale le roi n'a jamais été seul mm-hmm. il a toujours eu des conseillers. Absolument. Tout à fait. ah qui réfléchissent si c'est la guerre si c'est la culture. Mmh. et cetera et cetera mmh. donc ñun pourquoi on ne va pas aller dans le sens que nga am benn conseil élargi. Mmh. mais sur la la loi par exemple la constitution. Mm-hmm. mais la constitution sénégalaise les gens ne savent pas c'est quoi la constitution ah. les les les marabouts les oustages. Mm. Euh, fils de daara 90 pour cent 90 pour cent de la population n'a jamais vu la constitution. Mmh. mais soo amoon conseil. Mmh. nga ne les xalifs ils viennent les marabouts ils viennent tout le monde vient. Mmh. les dignitaires euh, traditionnels viennent l'église vient les politiques viennent on dit voilà la constitution du Sénégal. mais xalif yi bu ñu àndoon ci constitution boobu pour nga dindi ko du du yomb ci. du et je pense que loolu c'est ça qu'il faut. c'est ce paradigme-là qu'il faut qu'il faut oser. Absolument. état bu yore c'est pas notre état c'est l'état français. Absolument. et je pense que là il faut s'en oser je crois que Diomaye et Sonko et le PASTEF ils voient bien l'enjeu. c'est-à-dire qu'on a un état qui est piégé qui est importé. bay loolu dafa laaj quand même beaucoup de réflexion. beaucoup aussi de sérénité nga déglu nit ñi. pour pour refonder en tout cas les institutions il faut commencer par l'État mm-hmm. defe naa loolu c'est c'est important que mu nekk mu nekk un débat mm-hmm. bon c'est la même chose aussi pour euh, pour les autres politiques pour moi euh, les politiques publiques mm-hmm. on ne doit plus les parachuter c'est ça qui a échoué cest dire fu ñu fu ñu toog depuis Senghor ba tey ji gouvernement bi mooy def politique am yóbbu ko ci base bi réunir les gouverneurs les préfets mais c'est l'élite mais la population ne participe pas aux politiques publiques donc pour moi il faut revoir ce paradigme là comment élaborer les politiques publiques mm-hmm. comment faire participer les les populations mm-hmm. je crois que je suis absolument d'accord avec l'option de Diomaye c'est mm-hmm. une gouvernance concertée et inclusive absolument. que il faut aller jusqu'au bout de cette logique là c'est-à-dire que bu ñu amee politique publique nañu dem toog ak les acteurs discuter participer et que les populations s'approprient les politiques publiques. Mmh. Pour moi, là aussi, c'est un autre problème. Maintenant, pour les héritages, mmh. bon, euh, moi, je ne suis pas pour le maintien de ce qui n'a pas marché. Mmh. Non, ça n'a pas marché. En Macky Sall, même problème, Wade, même problème, Diouf, les mêmes problèmes. Bon, ça, ça, veut dire que le système de gouvernance, il n'est pas opérationnel. Il faut avoir le courage de changer d'orientation. mais pas le PASTEF a de bonnes idées mais pas seul pas seul on ne peut pas changer la situation du Sénégal de l'Afrique avec un parti ils se sont battus en tant que parti àgg nañu ci nguur mais pour gouverner c'est avec la majorité des Sénégalais mhm. loolu s'ils ne comprennent pas ça mhm. bah on aura des conflits entre le parti majoritaire et la population et je crois que pour man euh, euh, en tout cas l'heure de vérité c'est bon là je termine par ça c'est-à-dire que gis nga stratégie bi mu bi mu bi mu bu ñu wax ça va pas être du tout la stratégie des des des anciens présidents non il faut que les Sénégalais comprennent que le PASTEF là il a son projet à lui mais différent différent de ce qui a existé jusque-là euh, le et pour moi euh, par exemple je prends l'exemple de la France nous on a un complexe qui ne se justifie pas France dundalul Sénégal pourquoi pourquoi on devrait dépendre de la France elle ne veut même pas de cette dépendance elle, elle n'a même pas les moyens qu'elle avait avant donc complexe euh, français bi. Mhm. occidental bi. Mhm. il faut briser ça. Mhm. ça. ça que gis nga chinois chinois moo ëpp doole France en Afrique. économie commerciale technologie perspective. pourtant ils n'ont pas d'armée. ils ne viennent pas pour nous coloniser. mais ils viennent pour travailler avec nous. et, je pense que ñun suñu en tout cas suñu si on brise le complexe du mm-hmm. de l'occidental mm-hmm. et, et on n'a même pas de raison d'avoir ce complexe parce que mm-hmm. suñu histoire yëpp li muy wone euh, nitu diine yi nga wax ñoom ñëpp ñoom ñëpp amul kenn ku taxaw ci gannaaw tubaab bi amul de amul kenn ci ñoom ku nekk ci ñoom am nañu ta voix originale que ce soit Sénégal Mali Guinée les Africains ils n'ont jamais accepté la domination mhm. mais pourquoi nous mhm. en 2024 on, on, on souffre d'un complexe d'un complexe qui ne se justifie pas que boo xoolee rek même diaspora Sénégal mhm. war na nekk miroir cette cette cette là elle n'est pas en France elle fait intervenir plus que l'aide publique européenne chez nous elle est plus dans le, le, le, dans, dans l'Asie, dans l'Amérique que, dans l'Occident traditionnel. Mm -hmm. Même cette diaspora-là, bon, elle, on devait prendre ce modèle-là d'ailleurs mhm. en termes de coopération. Mm -hmm. C'est-à-dire que man, le si nous avons une diaspora, on a tel projet mhm. agricole, on mhm. tel projet industriel. Comme tu dis, la diaspora, plus les khalifs généraux, là, honnêtement je, je on, on se passerait des bailleurs de fonds. Mm-hmm. gis nga les vallées fossiles là. Mm -hmm. mais nañu lancer les mm-hmm. vallées fossiles ñu ne Sénégalais yi on finance nos vallées fossiles on on finance notre agriculture on, on va voir qu'est-ce que ça va donner est-ce que nit ñi dañuy soxla coppite Union européenne wala wala mm-hmm. américain on, on ressources on a les moyens mais lu ñu manqué mooy volonté politique bi mm courage le courage le courage politique alors. loolu ma dem ndaw rek bu ma souligner léegi quoi. waaw c'est en fait que complexe boobu muy wax. c'est complexe boo xam ni dañ ko sentirul mais euh, mi ngi dañ ak doole. parce que euh, doyen euh, boo ko seetloo bu jëkk nit bu daan jël exemple bu terre à la lay dox sénégalais bu jógee Sénégal dem France dellu si Sénégal. attraction bi mu doon nekk. ak làkk tubaabam comme comme comme suñu arabisants yi rek. nu ñu nekkee di làkk arab di rouler ay R rek ay affaire yu demee noonu quoi. complexe boobu waaw complexe yi noonu la. am na complexe oriental am na complexe occidental arabisants yi c'est des complexés. ñu demoon jàng ak école occidentale aussi c'est des complexés. par exemple dans les milieux dans les daara de Seydil Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu j'aime bien citer les les trucs là wala nga jël Sëñ Touba même quand il chante il ne authenticité bi ci am. topp ndowuñu arab yi. mais les nouveaux arabisans yi nga xam ne dañu bëgg par exemple indi fi ay daxwa ak ay yu xamul ñoo ñu des c'est des gens yu nga xam ne qui sont acquis au au monde oriental quoi ak ak seen idéologie quoi xam nga bref mais dama bëgg wax nii même boo koy seet sur le plan économique Sénégal tey le Sénégal de 2024 France nekkatul sax en réalité suñu partenaire privilégié. Mm-hmm. boo koy seet. tous les chantiers qu'il y a au Sénégal France amul benn benn walaatu pétrole société française amu ko fii au Sénégal ak gaz kooku ça doit les gens doivent se poser des questions on mm. avance on est en train de régler ces contradictions mais on le fait en douceur on le fait sans tambour ni trompette c'est pas à coup de voilà de de de, de théâtralisation et de déclaration de slogan et cetera et va y arriver moo tax ma doon wax sànq ay apéro raccourci aujourd'hui avec euh, les NTIC et tout le monde est ouvert c'est un village planétaire tubaab ba la muy xam tey tey tey tey moom mën nañ koo xam ñun grace ak yi nga xam ne mooy jumtukaay yi yu xarala yi donc il y a des yoo xam ne ñun ay di mën nañ fi capter ay ay ay xel ay xel mën nañ fi capter ay techniques et tout et tout et tout a les ressources tout est comme doyen dit souvent caabi donc man dama gëm ni oh xoola fu ñu mën a dem loolu moom dana dana toxu complètement complexe boobu ci tubaab léegi le tubaab est démystifié jëli tubaab bi indi beneen sa tubaab xam nga bàyyi dañu am suñu yëfu bopp voilà te euh, ci weeru koor yi dañ daan toog fii di teg plateau ñoo parle de l' économie mouride mmh, mmh, développement mouride waaye amul référentiel bu gën boobu. modèle développement. modèle de développement. c'est-à-dire aujourd'hui lépp lu murid bi def bëgg defal boppam da koy defal boppam te du ci xaar kenn. Mm. lépp lu am Tuubaa lu mu bari bari bari bari da koy defal boppam te di ko ja di ci xaar kenn. Mm-hmm. ñaseen ba noonu. Mm-hmm. ti tiwaat euh, ba noonu keneen ak keneen noonu. Mm-hmm. ñun suñu développement mënoon nañ ko accès foofu. moo tax quand il est allé vers les guides religieux su mi dàllam jël jël leen ñoom teg leen ci kaw dama jàpp ni dina andi soppiku bu bari. Mm-hmm. soppiku bu bari dans la manière de voir les choses dans les dans la manière de voir les mm-hmm. parce que tey suñu suñu financement yenn projet yu bari. Mm-hmm. mën nañ ko defal suñu bopp ci kaw. lañ doon wax ñoom le doo de soi pour la patrie. mu bañ a nekk doo de soi ci jëfin ci doole rek mu nekk ci doo de soi ci xel-xel li. ak ci koom-koom. parce que le don de soi pour Serigne Touba. murid da koy def. mooy day jël dërëmam dem ca. jël jël dooleem def ca. mais maintenant nag su nekkee dañuy andi rupture totale il faut que qu'on tende vers ça. Mhm. qu'on tende booy mooy jël sama doole def ca. Mhm. jël sama alal def ca. Mhm. mooy si nous devons refaire nos il faut que les Sénégalais le fa refassent. ñoo koy financer. ñoo koy liggéey. si nous voulons la la la souveraineté alimentaire il faut que sénégalais yi financer ko. liggéey ko. mais boobu day fekk nag ñu tëju. comme ni ko ñu defee woon. du ñu dem du ñu dàq du ñu dàq tubaab andi beneen tubaab. du dëgg. du ñu dañuy dañuy dañuy dañuy tëj suñu frontière. ak diir. liggéey ko nit ñi nangu def ci seen doole parce que dañoo bëgg ñun ñëpp nous voulons le développement de ce pour ça il faut une communication. loolu pour loolu nag il faut ñoom ñu taxaw wax ak askanu Sénégal doyen da koy wax fekk nit ñi ñu xiif ba pare nga naan leen kaa leen tëju def lii. yaa ngi ko man c'est-à-dire da koy wax tout il faut tenir un langage de vérité à la population simplement ça mooy lii lañ fi fekk te ñun lii la ñu bëgg a doxale mm-hmm. puisque yéen a ñu wóolu ak 54 pour cent ci liñ leen jaayoon mm-hmm. pour ñu mën a accéder foofu lii dañ ko mën a doxale mm-hmm. mooy maanaam lañ daan joxe suñu bopp naan dañuy jël suñu alal def ci jël suñu doole def ci dañ koy continuer mais nag dafa am ay mécanismes yooy teg pour al askan bi war laa mën a wóolu pour ñu mën ci jël seen alal def ci mën a yëkkati seen doole def soo ko deful taxawee ko du mën a nekk. soo ko deful taxawee ko commencer par jël nit ñi jeter leen en pâture vindicte populaire. wala commencer kay ay nit di commencer di di yaakaar ci ay suuf nga ne leen arrêté nañ ko. yaakaar dina xaw a xaw a des. mais il faut qu'on soit un peu optimiste par rapport à la démarche man loolu laa jàpp. maintenant la démarche de de Ousmane Sonko en tant que président de parti politique. parce que bu ñu fàttali ni ba ñuy nekk opposition ñoom dans chaque pays ils avaient des candidats. ñu ngi am ñu ngi nekkoon relation à Guinée-Bissau ak kenn am na ko ñu nekkaloon euh, relation à Tchad je pense. qui celui qui a fini par entrer dans le gouvernement. Euh, am na ko fi mu ne nii il faut que ñu ci parce que. bokkuñu ci monde libéral bokkuñu ci monde socialiste bokku ci yeneen idéologie il faut ñu am ay ay ay alliés maintenant est-ce que su tournée boobu il va il ira vers les putschistes ou bien il vers les hommes politiques parce que là c'est une question parce que su demee vers les putschistes c'est dangereux on aura la CEDEAO à dos du Sénégal parce que CEDEAO dafa am lu mu wax putschistes yi ñu taxawuñu ci le Sénégal ne s'est pas rangé. maintenant su nekkee dafa dem vers les putschistes vers Mamadi Doumbouya vers euh, Aboubacar Traoré mooy les putschistes là ça devient dangereux pour le pays Absolument. et on tend tout droit vers l'esselement de ce pays par rapport à la CEDEAO donc bu mu fàtte dans sa démarche qu'il est chef chef de parti mmh. mais il est premier ministre de la République du Sénégal mmh. puisque il est premier ministre de la République du Sénégal casquette am boobu du denc ci moom tant jógewul ci poste bi parce que le Sénégalais ne saura jamais faire la dichotomie entre le chef de parti et le premier mmh, ministre donc ci li muy dox bu mu fàtte mukk sa casquette de premier ministre de la République du Sénégal parce que toute décision qui sera qui sera prise mmh, mmh. day toucher directement la République de ce pays là donc war na mën a xoolaat sa démarche ak ban type par rapport à la venue de Luc Mélenchon gis nga dans ce pays là par rapport au rapprochement des deux partis toujours bu mu fàtte moom aussi que dafa yor casquette premier ministre de la République du Sénégal et nous connaissons les coopérations bilatérales qui existent les bilatérales qui existent entre ces deux pays là te mën na àndi ay préjudice c'est vrai nous avons constaté que depuis bañ ko falee ba tey demul vers l'Occident mais je sais que il ira vers l'Occident obligatoirement parce que il a besoin d'eux le maillage de du PASTEF par rapport au, à, à, à la situation géopolitique warul mën a yàq les relations bilatérales entre les pays que le Sénégal a avec les autres parce que lu tax may wax waxi putschistes ces putschistes sont très proches de la Russie mhm. man du ma dàq France di jege Russie man du ma dàq France du jóge Russie su ma dàqee France dootuma jegeti benn pays occidental mm-hmm. damay jàpp ni man war naa mën a demal sama bopp maintenant est-ce que dans leur démarche ils vont se rapprocher de la Russie mm-hmm. ou bien ils vont se de la Chine ou bien ils vont se rapprocher de de la France ou bien ils vont se rapprocher vers quel parce que soo nekkee ci réew il faut nga am ab wiiruwaay au niveau international parce que moo lay faciliter lu bari bari bari bari dans le cadre des coopérations et des financements mm-hmm. su nekkee nag da ngay apporter rupture par rapport à ça mm-hmm. da ngay bañ ñëpp mm-hmm. tëju jëlee sa développement ci biir réew askan bi financer projet yi askan bi liggéey bi projet comme ce que euh, Thomas Sankara avait voulu démarrer en en en en au Burkina Faso et ça n'avait pas abouti. parce que la ko ca fekk fekk na ko ca. maintenant nag maintenant il faut voir. quel type de politique. diplomatique la ñu am ñoom. oui c'est important. c'est important mooy de bon voisinage. waaw ku nekk xool ngay taxaw ak kan ku nekk xam ne. sa rôle lii la fii laa war a yem. non mhm. seulement je suis le premier ministre. Mhm. même si je suis chef de parti. Mhm. wala je sais pas s'il a démissionné ou pas du parti mais peu importe. am leneen loo xam ne moom ngay représenté lu dul. chef de parti ba yow yaay suñu premier ministre beneen beneen mbir yaa ngi ko doon wax sànq mhm. il faut obligatoirement retrouver la position du Sénégal au niveau international Absolument. en commençant par la CEDEAO en mhm. commençant euh, en allant vers parce que mhm. le Sénégal avait une position centrale au niveau de l'OCI le Sénégal était avait une position importante au niveau de la CEDEAO et au niveau du G7 et du G21 notre président de la République parce que l' état c' est une continuité man loolu laa jàpp. Mm-hmm. il doit reprendre ses positions du Sénégal. Mm-hmm. pour aller vers la le règlement de certains conflits. en quoi faisant gis nga l' affaire du du du de Israël. Mm-hmm. et du Palestine. c' pas seulement de de de des déclarations d' intention. il faut aller vers. la cohabitation parce que loolu le président Macky Sall doon prôné il faut aller vers la discussion entre ces le premier ministre euh, israélien et le et le et les autres pour mm-hmm. parce que des fois da ngay jouer rôle médiateur mm-hmm. pour réconcilier les peuples parce que surtout que moom ba muy falu moo ñu moo ñu wax nous allons vers la réconciliation des peuples peuple sénégalais. Mm-hmm. oui le peuple sénégalais est en train réconcilier. Mm-hmm. mais aujourd'hui dafa mission boo xamante ne moom lañ dénkoon Sénégal par rapport a à au Palestine xaw ma à la au Palestine. à la Palestine mm-hmm. donc mission boobu ñu ko dénkoon. position boobu Sénégal am. daf ko war a porter. dem vers ce qu'on la réconciliation et je pense suñ ko defee. crainte yi dina mën a wàññeeku. ñu waa ñu xoolaat bu baax foofu la ñuy tëjee sax. ñu ah xoolaat bu baax ci foncier bi. Mhm. aussi li nga xam ne moom lañ ci nit ñi di wax boobu ba tey. Mhm. jaxasoo na xel yi jaxasoo na. Mhm. xol yi jaxasoo na am na ñoo xam ne commencé woon nañu di liggéey. arrêté nañu mbir yi. il paraît que d'après Maître Doudou Ndoye l'État n'a pas le droit. response mhm. amuñu droit bi ak yëpp xam naa du ñàkk dinañ ci gën a yaatal parce que lu lu ñu war a gën a leeral la mhm. parce que liñ ci jàpp yëpp mooy chaque jour nga dégg ñu ne ah Maria am na fële terrain ndekete moom am na fa temps mhm. Adama Fall am na fa temps diw am na fa temps ñu def koy affaire yu rëy mais li ñu def ba am ko ñoom le mhm. sénégalais lambda boobu ni ñu ko mën a tuddee mhm. ñu def ba am ko am na keneen koo xam ne tey mu ngi ci état bi wala mu ngi ci opposition bi mhm. am na fa lu mot 500 wala 100 wala 400 yooyu noonu dañ ko war a xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moo di déséquilibre boobu am ci suñu réew même si on parle de réconciliation mënta am Alain Fall mu ngi wax léegi que le Sénégal yi en train ils sont mm-hmm. nous sommes en train de réconcilier c'est tout à fait une utopie mm-hmm. gëmuma mm-hmm. parce que li tax gëmuma ko mooy bu fekkoon on était en train de yoo xam ne dañ ko teg aussi sur la table kii di jéppi kii kii di ji am na ñoo xam ne man tey bu ma leen déggee sax leen di mere parce que mosuma xalaat ne bokk nañ ci vous comprenez la vérité dañuy lancer li may wax tout le temps dañuy jox appât bi rek di hmm. jàppale ci loolu en attendant hmm. Hmm. donc nañu nañu bàyyi wat xel bu baax ba te xam ne kenn nelawul monsieur Guèye voilà foofu la euh, bi man man dama jàpp ni pour foncier bi waaw en fait ils ont commis une grosse erreur xam nga li ñu naan boîte au Pandore loolu lañ koy waxee dafa mel ni loolu la ñu ubbi quoi parce que bala ngay euh, digle euh, set set day fekk yow nga sangu bala ngay digle sangu day fekk yow nga set mais les inspecteurs des impôts ah nañ ma baal quoi parce que c'est un corps que je cite très souvent parce que ñoo nekk aux affaires mm. presque gouvernement bi yëpp boo koy seet genn wàll yëpp inspecteur des impôts lañu mm. la haute administration sénégalaise presque ñëpp mais même bu dul ñoom même même omni euh, mais dama bëgg wax ni daal même le président de la république lui-même mm-hmm. en personne le président Diomaye jo euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. lui toog na fii man maa ko gis mu toog fii ak 7TV mu ni il il s'était par rapport ak benn dëkk dëkk bu nga xam ne foog naa mooy Ndengaleer mhm. nga xam ne am na mën nañ fa jox nit de benn hectare alors que 7TV mi ngi loué waaw il l'a dit ici mhm. alors paradoxalement on découvre que lui-même à Sandiara il a hectare hectares pour un jeune qui est né en 1980 qui a commencé à travailler en 2007 mhm. mais c'est c'est paradoxal ça c'est c'est c'est scandaleux moo tax moo tax ñu war def attention entre entre la campagne. Hein? entre quand tu es à l'opposition et quand tu es au pouvoir malheureusement. temps bi moo ñu dab celui qui parle de de de machin de la corniche. du scandale au niveau de la corniche muy Atepa. mais gis nañu Atepa fii euh, nu mu tuddati euh, ne. Euh, il est kii bi sax nu mu tudd Radisson. malheureusement temps bi jeex na c'est lui qui temps bi jeex na. monsieur Guèye. ñu ngi lay sant di la gërëm baax a baax dañoo war a dem journal moo tax. merci on espère prochaine fois dinañu dinañu amaat temps ñëw. di remercier Mamadou Awa Ndiaye bu baax baax ci li ñu facilité ñu mën la am sur le plateau remercier Papis Mbaye merci Yarama Fall. merci et puis Aziz ñu koy baal wax parce que mi ngi ñaxtu rek naan da ngeen ma ameel àq ñun dañu saa yu ma waree dem rek yéen ngeen téye ñu ci kanam. nee ko mu toog mooy suñu xarit nee waaw à demain incha allah merci beaucoup doyen Mamadou Sy Albert merci Adama Fall merci Amadou Moustapha allah 11